salaamaaleykum tey nag ñu ngi ak euh, kër sëñ Cheikh euh, Oumy mu sëriñ fàllu waaye ñu fekk fii itam koo xamante ne bii kenn dootu ko présenté ci réew mi laaj Maodo Mbaye Garmi euh, maa ngi lay siyaar bu baax di la nuyu. maa ngi laa fay bu baax di la delloo ziar bu baax a baax sama sang. tey bu ñu la fekkee kër sëñ Cheikh Oumy mën nañoo xam teewaay bi sa digg ak sang bi. waaw teewaay bi nag xanaa teewaay bu jekk la te rafet ndax moom sama sëriña sama xarita ma ànd fi ak sama ñaari soppe yile Alaaji Lamine Thiam Dogo mm. ak Texe Sam bët géwél gànjool at mu nekk ñu koy fekk si fii ci péncum baayam bile nga xam ne boo ne koo jàkk sa xel lu dem fenn boo ne ko jàkk rek xam ne sëñ Fallou ko jàkkaar lool loolu moom yàllaa ko dogal ma di ko fekk si fii mm-hmm. ci yiw gi ci wàcce boppam ci mbaax gi ci tab gi ba pare yit nag macha allah dana dinañ koy reeroo nuy reeroo ni sëñ fal daan def bu nu ñëwee soxnaam su baax sii la nu fi fekk soxna aji fay mu baax mii moom la alaaji Lamine mu wax léegi ne woy juróom bu tedd bi alaaji sëriñ moo nekkoon représentant xaadim rasoul ca Pikine yàlla fay ko nag Cheikh Oumy mu baax mii te xam nga 69 ak léegi yàgg na boobu defe naa ne bu nu juddoo tamit <laughs> at yi di ngi boobu fekk ña ngay ña nga nu dara ña ca mbege ma mu nekk nag loo xam ne lii nag kalla tubaarkàlla tubaarkàlla ba yàlla nag dénk ko sang bu tedd bile nga xam ne kenn la ci nun sunu xarita sunu soppee dañu ko bëgg sunu xol bu ndee dëgmal ci moom parce que kilifa du raglu bu nu nekkoo jàkk rek sunu xol bi day day mu day am lu ñuy yëg Mm-hmm. te loolu yëg duñ ko duñ ko gis fenn duñ ko yëge fenn kër Cheikh Oumy gi rek lañ ko yëge ndax koo xam ne danga koy reeloo mu di la reeloo te mooy sa sang. wallaay ah, loolu loolu loolu dara fay ko. tey nag euh, ñu ngi fii ci kër sëñ Cheikh Oumy ne euh, nekk koo xamante ne bi tam ku ko xamul dégg nga turam Alaaji Lamine Thiam dogo mu baax mi tubaar fa la géwél nag ñoo yàgg wax lu baax ñoom fépp fu baax boo demee fekk leen fa wax dëgg yàlla euh, ñuy wax istuwaar waaye itam di nettali lu baax Alaaji Lamine Thiam sëñ Fallou doomam ji di sëñ Cheikh tamit këram lañ la fekk lu war a loolu. Euh, jërëjëf maa ngi lay nuyu noo tudd. Xaadim sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu teen téléspectateur yëpp. di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu wayjur di sant Serigne Touba. Mm. Euh, sëñ Seexu mi nag euh, diggante bi dafa yàgg lool muy sëriñ Fallou gu sotti nga gis ko boo ko gisee rek da xam ni Serigne Fallou nga jàkkaarloo. mu nit ku baax alaaji Modou Mbaye Garmi wax na ko léegi eh, muy sëriñ bu baax am tab waaye am yar waaye di koo xamante ni dégg nga li mu wax léegi nangu leen liggéey nangu leen jaamu yàlla la maamam ju tedd jës xaadimu rasul borom bis bii doon digle moom rek la digal taalibe yi liggéey leen te jaamu yàlla mhm. fonk daayira yi fonk xasida yi fonk alxuraan loolu la maamam daan digle Mm-hmm. ñu koy ñaanal yàlla li maam di séddale ci bis bi yàlla bu ko kenn ëppale mm-hmm. euh, màggal gi nag comme niñ ko waxee rek ndigal rek nu fi indi ndigal soo mënee defal boo mënul defal ndax ndigal ci la nit di àgg ci borom ndax lii fii def yëpp jàngal alxuraan ak julleek woor ak nas asaka yëpp ndigal la rek soo ko deful doo àgg sa borom kon ndigal day baat boo xamante ni baat bu gàtt la waaye dafa ëmb lépp dafa tëng lépp. di leen gërëm bu baax nag di gërëm soxnaam si ni fi fekk. soxnaam dégg naa léegi euh, nga wax ne waajuram moom la ñu euh, moom la euh, moo représenté woon Serigne Touba ca pikin mm-hmm. moom moom moo njëkk a dégg représentant Khadim Rassoul ci mm-hmm. senegal ñu koy wax Alaaji Serigne Faye booba bëri na ñu ñëw Touba bëri na ñu nekk murit këram la daan dem wala koñam baa ngay wala ngay ànd ak doomam mu tegale oto yi car rapide njaga njaay oto la daan teg ba mu yu bëree bëri bëri ci koñ bi ni ku bëgg a màggali ñëwal nga dem ñëw doo fay dara kooku mooy alaaji sëriñ fay boo ku mu sant sant Mbàkke it jóge Touba ñëw département bu ñuy wax département Pikine kër alaaji sëriñ fay ngay dal ba sëriñ fal mu baax ma gorom ndax kii kii alaaj sëriñ fay ko jur mu jël ko may ko doomi sëriñ fàllu ni ko bis ni ki tey yaa teewal sëriñ tubaa ci Pikine fii jumaa ji nekk jumaay murit nekk fii ci tali bu bees diggante tali bu bees ak tali bu mag titre foncier bi moo ko moo ko moo ko lijjanti ba mu tegu ci loxoom mu tabax fa ay pant tabax fa ay néeg ni ku fa ñëw mooy kër sëñ tubaa kër sëñ Touba genn rek moo njëkk am ci Sénégal ñeneen ñi ci des yëpp dañ koo roy waaye kër sañ Touba Pikine rek la Pikine la njëkk am. ñu ngi lay siyaar ñu ngi la fekk kër sëñ Cheikh Oumy mu sëñ Fallou. dëgg la jërëjëf dama kontaan trop ci fii ngeen ma fekk. ma ak sama nawle yi sama rakk yi. di El Hadj Lamine Thiam Dogo. ak El Hadj Modou Mbaye Garmi jataay bii nag du tey la jëkk mën naa ni tey am na ñaar fukki at ak topp yu nga xam te ni bu waxtu yu jotee ñun ñëpp suñu xel ci kër gi lay ne di fi sawar ñëw lool nag ndax ki ni fiy fekk man bu ma ñëwee Lamine Thiam Dogo ak Modou Mbaye gar mi dañ ko naan sa tiijaan bi ñëw na mun leen mooy sama gan yéen kit xam leen ni tiijaan bay sama gan loolu nag. loolu dafa neex. dafa neex. loolu day dal dalal xelu taalibe sëriñ bi nag wax naa léegi nit ñi ñu ngi gënante ci daraja yi moom nag darajaam daf ko bokk ñu mu am ñépp taalibaam yi xaritam yi soppeem yi njabootam yi li mu def mooy def leen ubbil kanamam ba ñëpp ñemek boo ñëwee da reeloo tàpp la neexal la nax la làmb ci poosam teraanga jébbal la kon balay sa buri dañu koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan waaye wolof day wax ni góor gu baax goo gis jigéen ju baax day ne ci wetam soxna si nu fekk dégg nga ni Lamine wax nit du nuru bokk jàmbur kenn ku ne say bokk ngay nuru mm. ni mu juddoo caaskan noonu la ko yàlla terale sëyal jox ko boroom këru doomu sañ fallu loolu nag doy na ndam di jigéen di ndaw sàmm sa bopp ba doomu sëñ fa lu jël la doy na sant yàlla léegi la na sunu jarbaat bii teral teraanga ju mat sëkk kon ci gàttal daal dañuy ñaan yàlla yoon wii seen yoon yii ak yoon ak bisu màggal gii lépp lu fi waaye ñaan yàlla ko yàlla nangu di ñaan yàlla lii fi dal feebar bii di ñëw yàlla ko fi yàlla jële yàlla jële ko fi te yàlla def leen ngeen di mag kontaan noonu trop xaadim